yàlla baax na lépp yàlla baax na yàlla yàlla baax na man su ma sañoon sax duma ci wax de parce que bëgguma mu nduru tontante wala defante franchement parce que billaay dara du ko dindi yaay jëm doon ci man dara du ko dindi bëgg naa ko te dara du ko dindi parce que lu dëggu la ci man waaw mais man à chaque fois damay de keroog bu ma sañoon moom numéro professionnel moom la may jox mhm. non araam aram yu ñu sax mais xam nga ne dañuy bëgg di expliquer mu leer parce que ku nekk ak ni ngay comprendre moo tax te man tamit jot naa ci ay menaces yu dul jeex dangaa bëgg a jaxasitee sénégalais yi fenkat nga lu ne moo tax moo tax man damay bëgg damay bëgg di leeral mais man waxuma ko sama mariage yow borom euh, commentaire boobu nga ne waxuma ko sama mariage. woo naa ko mais jotuma ko ma ne waaye bu ma ko jotoon. ndayale bi moom lay doon man loolu laa man je suis là comme question boobu ma bëgg a poser rek amul benn problème dana ko tontu. il faut éviter de répondre à la provocation danga nekk ndawte danga nekk ci yoon billaay ndeysaan musuma ci bëgg a wax euh, mon frère Ahmed musuma ci bëgg a wax te. li nga wax nii franchement conseil bu bien la maa ngi jéggalu bu baax a baax comme man maa indi benn sujet indi benn débat ma ne ko am loo ma war a bëgg a posé nanga ma ko posé man dinaa la répondre loolu moo indi kii bi man mosuma ci bëgg a wax sax billaahi parce que nit kii moom boo gëmee dara moom mu nekk ci yow leer na yàlla leer yonent bi jarul amul dara looy leeral keneen man foofu laa ko jàppee woon mais mooy loolu rek yàlla baar dootuma ci waxaat bu soobee yàlla amul benn problème non man affaire yi méttiwu ma sax méttiwu ma musuma métti ah musuma métti mais parce que dafa am ku musa ku ku commentaire woon ba nit ñi xam nga rek sama proche yi capture ko yónnee ma ko mu ne soxu bébé mii elle est pas dafa am benn waay bu commentaire loolu ci commentaire yi mu ne bu ngeen demee Fatick ba def micro trottoir xam nga xam ne jarul dara fi mu dëkk waaw ku réew la respecté wul yaayam respecté wul papam man loolu rek moo ma si woon parce li mu wax noonu dafa ñaaw ci sama der jël temps nag bind te loolu amul man li may wax rek gis nga nit ñi kenn moomu leen te à chaque fois damay gis bu ma wootee Fatick billaay wallaay village waaye sax da ngay gis ñu takk seen ay sareet ñëw donte dañoo dañoo dañoo sori Fatick mais dañuy ñëw indi seen euh, ay sareet taxaw béggeeg man ba mu jeex man boo ma fréquenté wu rek mënoo maa xam man mënu du ma forcer kenn nag mu bëgg ma waaw ndax moomuma xolu kenn mais man moom xam naa sama bopp te waa Fatick yi moom incha allah interview boobu micro trottoir la ñu wax xaw ma loolu dina am bu ko defee waa Fatick joxe seen avis ñu xam bu baax ñeneen ñi ma xamul ñoom ñu xam bu baax kan mooy soxna waaw man moom <laughs> léegi laa commencé dégg nit sax waaye bu njëkk dof lañ ko doon woowee parce que man àddina bi laa jàppeewul dara dara dara dara dara dara waaw te ay affaire u succès mooy loolu yàlla seede na defuma dara dara dara na ma meloon démb ak barki démb laa mel ba tey fi mu ne nii nag laa gën a kii parce que dama nekk ci mariage gisuma lu dul occupé sama sama ménage gere sama jëkkër bañ a dugg si ay détails su ngeen gisee fan yi yëpp ma wàññi ci réseaux sociaux yi loolu ci la bokk parce que boo amee jëkkër muy jullit jullit am bokk si famille bu baax famille boo xamante ne amul kenn kuy wëy suñ borom nattu la nattu ko boole kook yow mu takk la. am na yoo xamante ne nii danga ko war a danga ko war a muytu danga ko war a jomb loolu moo tax lu bari fan yi ma raar et tout dara raar bi yëpp nag maa ngi tëju di liggéey waaw ah, waaye tamit man waxuma sax sama ay fans dëgg la war naa leen sóoraale waaye maa ki may gën a sóoraale jamono gi mooy sama borom kër parce que tey jii nii am na lu bëri tey bu ma ko defee rek dinañ ko waaw macha allah mais incha allah rabbi yàlla baax na. xanaa yàlla musal ñu ci seytaane rek bu weesu bu dul loolu moom kenn du ñu gis ci gaalu xaj bu soobee yàlla lu Sarr dëkku séeréer yi laa dëkk de waaye dégguma séeréer soxu dooma faale doo ñëw suñu fëskoo ngir yàlla dinaa tontu message xam naa bari na nag torop ci suuf mais dinaa tontu bu soobee yàlla incha allah rabbi Etika du merci beaucoup merci beaucoup soxna namm naa la Malick Camara maa la raw maa la raw lu bari maa la gën a bëgg ummi merci beaucoup Mhm. incha allah ah merci pour les messages d' encouragement xam nga message ne commentaire yi dafay gaaw ni muy ni muy demee nii mais bu ma sañoon yéen ñëpp laay tontu voilà mais sama xol sedd na trop di leen xamal ne bii mooy sama compte TikTok mais du may faral di ci publier. incha allah léegi nii dinañ ci commencer def ay vidéo di leen.